xam naa bis bu jotee pour mu nekk candidat wala bis bu jotee. pour mu daal candidat bi kenn du ci wax. <laughs> ah mais euh, ñun ñun président sa dañu ko ànd ak moom ànd naw c'est-à-dire boo mënee wax ak nit ci biir wala nga wax sa bëgg-bëgg wala sa yéene da koy defee fa nga ko war a defee. Hmm. maintenant li nga xamante ni moom moo nekk. ak même yow laa ko laaj quoi. waaw man maa ngi lay tontu à titre personnel cest dire je une coalition boo ñuy wax Benno Bokk Yaakaar. am leader boo xamante ni moo jiite sama parti muy le parti Rewmi muy le président Idrissa Seck actuellement dans l' actualité du parti mi ñaari point ñoo fa am amagul point bu ci ajouté wu le premier point c' de faire en sorte d' animer notre parti le mi instance yëpp fexe ba ñëpp yëngu def le recensement général de nos militants xool naka la ñu toll. mais loolu signifiewul candidat présidentiel 2024 beneen bi mooy renforcer. non signifié wu ko parce que président Idrissa. loolu pour lan mais pour pour day wax di wiiri. mais pour lan bis jotee pour mu wax sénégalais yi sa position wala mu wax sénégalais yi ci avenir politique am wala mu wax sénégalais ci avenir am daa benn dina ko def. mais pour lan pour lan lan moo ah? tax moo tax moom mu wax loolu lu tax pour lan. loolu le président Idrissa le recensement recensement objectif mais euh, ñun dem nañ fi élection ñaari élection waaw. muy élection euh, législative avant législative dem nañ élection locale. boobu ba léegi defuñu vente de carte ok on a pris l'option ñu waxtaanee ko en secrétariat national de recensement la ñu def pour xam ñun nan la ñu toll parce que aussi loo gis da nga koy utal baromètre ñun mënuñu jël benn choix politique wala ñu waxtaan ak benn euh, euh, militant wala responsable te ñun waxuñu nan la ñu toll il important que parti bu nekk xam ni nga toll loolu c'est minimum xam say militant fu ñu nekk xam say responsable fu ñu nekk xam jigéen ñi ñaata la ñu xam ah, wu non man waxuma candidature parce que du actualité suñu parti. ok actualité suñu parti mooy le recensement général de nos militants te ñun ñëpp jot nañ suñu. ay fiches muy def recensement tàmbali ngeen ko ñu ragal on a commencé. les recensements am na ñu jot a jotee joxe seen ay fiches. et je pense que loolu daf ñuy permettre ñu xam responsable bu nekk déjà noo toll ak ñun aussi d'une manière générale ñun naka la ñu toll ndax élection yi on est sorti. fort plus fort wala on est on a on a quelques difficultés wala bu ñu amee difficulté ci Barthélémy non ñu on est juste dans un parti politique boo xamante ni responsable lañu kilifa lañu fa donc lépp loo xamante ni suñu yéene la ak suñu mbébét la am nañ fu ñu ko waxee ci instance yi donc on n'a pas besoin quand de sortir